sant sama sëriñ Cheikh Mat Bamba sant ko bu baax a baax te di sant sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa la ma ko waxoon rekk laa koy wax mooy nee naa ko moom xéewal bu yàlla wàcce la pour mu defar askan wi ku fekke Masaalikul Jinaan ku fekke yeneen i jataay ak ku ko déglu daa xam ni kii xéewal bu yàlla wàcc la mu defar askan wi yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla na fi yàgg te di sant bu baax sama sëriñ sëñ Moustapha Massamba sëñ Moustapha Massamba bi ma amee juróom-ñeenti at lan ma ko jébbaloon te boobu ba tey mi nekk sama wet di ma taxawu biir ak biti te lii may dugg moom ak sëñ Mousta moom ak sëriñ Muntaxa ñoo si bokk ñoo bokk gis-gis ci man ndax bi ma jógee tib ba sëñ bi wax ma ni ma man kat gisuma la ngay taxawal parti politique dama la gis nga taxawal senegal yépp liggéeyal réew mi loolu laa gis ci yow ma leeral nag gannaaw declaration boobu gis naa sëriñ bi mu wax ma ni ma teraluma la de ni la bul politique waaye man parti politique laa laa gëm ni du sa jëmukaay yow danga yow senegal moo war doon sa parti peuple sénégalais moo war doon sa parti kon waruloo am parti loolu mooy li ma sëriñ bi wax ma ne que danaa ko jëfee dama dama ko ni woon mu may ma rek ma waxtaan ak ñi ma àndal ndax kër doo toxu yow boroom kër gi nga génn bàyyi ña nga àndal yëpp sa biir kër ga déedéet dangay fexe ñoo ànd ak ñenn ñi ñu ànd ak yow toxu fa nga jëm ñeneen ñi sunoo dem feneen nga fexe ñu àgg fa nu jëm looloo tax ma waxtaan ak ñoom nee naa ñi ma àndal tey ku si bëgg wéy si parti politique mën nga tànn mën nga tànn si leader yi ma àndaloon wala mën nga tànn mën ngeen tànn dajale def seen mouvement politique ak waa Dakar ak ñi nekk si Madické 2019 si Sénégal yépp loolu wax naa leen ko waaye jàpp leen ni du parti Madické ndax ma Madické amatul parti Madické xalaatatul def parti ma di day jëfe ndigal man dama war seet lan la sëriñ bi bëgg ma jiitu ko si waaye su demee ba sëñ bi di ma bëggal dara la ma bëggal mooy li gën si man sama àddina ak alaaxira sëñ bi li ma bëggal moo gën si man àddina ak alaaxira rawatina gannaaw ba ma ko bëggalee dama ñëw sama sëriñ dëggal loolu kon wax dëgg yàlla ma dikkee jëfe rek jëfe ndigal rek moom mooy sama taar feneen fu ma gis fu dul jëfe ndigal booba yàq naa loo xam ni kenn du ko mën defar si àddina alxamdulillah bi sama xol bii jëfe ndigal rek a si nekk lii moom laay wax sénégalais yi kon ba li jiitu loolu daje naa ñëpp maa ngi daje ñi si ëpp damay continuer gannaaw fii dajeek ñépp wax leen lan moo waral sama décision bi ñu dégg ko sama làmmiñ jaaduwul rekk ñu koy dégg ci presse bi dañ ko war dégg sama làmmiñ sant naa bu baax nag waa Touba ndax kat ñoom ñépp a taxaw li ma am si parrainage ci Touba aw ma ko fenn ndax Touba la sama yaakaar jëkkoon jublu am naa ko dëkk yépp waaye aw li ma am Touba aw ma ko fenn kon waa Touba yi ànd ak man rusloowun ma taxawu nañu seen kemtulaay kàttan nee naa leen man it rusloowuma leen la nit ñi doon wax si dëkk bi di wax ma dikkee candidature Macky Sall la nanga ma nanga wax naa leen tey àddina bi yépp xam nañ ni lu ma def si élection yi sama poste la génn sëñ Tuubaa fàggul ma xéewal yi samay kont samay kër bàyyiwuma dara dërëmu kenn gannaaw sama ñaar walla ñetti xarit yoo xam ni jàppale nañ ma as tuut dërëmu kenn dugg si kon nag man am naa fierté boobu ni sëñ bi fàggul na ma ay xéewal alal fajul de gàcce faj ma jug taxawu def li si war yépp gannaaw loolu ànd naa ak opposition ba ñépp xam ni koroog si guddi élection bi laa def déclaration ni su fekkee ni Idrissa mooy dem deuxième tour maa ngi fas yéene jàppale Idrissa yow mooma foofu ma dajale quatre candidats yi man ma am initiative dajale leen ñu bokk waxtaanandoo di jëm di bokk fi nu jëm bi ñu jugee foofu cercle boobu nu yaatal ko ba mu doon tey grande alliance lépp ci sama taxawaay kon man ma suma combiner kenn nit ñi nag ba doon wax dañu xamul samay valeur xam nga sëñ Abdoulaye dafa wax loo xam ni moom lay dund sama giiru dund dafa wax ni gannaaw fuur ba nu dugal sëñ Touba moom bi ci sëñ tubaa muccee si la gane ci àddina nu wax man Abdoulaye Mbacke su moom waxam laay nettali de ngeen ñu baal ma si ni ma koy waxee sëñ Abdoulahat laa wax waaye moom nam ko waxee man Abdoulahat Mbàkke su ma yaakaaree kenn ku yàlla su ma yaakaaree kenn ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su ma yaakaaree kenn ku dul sëñ duma du ma góor du ma jullit man su fekkee ni dama am leneen lu may def di ko yëgle ba ñëpp dégg ka ma am ay mbir yoo xam ni maa ngi koy doxale booba ñàkk naa ngor te man mu gëm sëñ Tuubaa di ñàkk ngor ñëpp xam ni man dama bëgg doon nattukaayu ngor képp kuy natt ngor nga ñëw si ma dikkee fekk ni nattukaayu ngor la ndax man ñéppay wax ni ma Madické Madické mu sëñ Touba taalibe sëñ Touba dafa war goree nun ko sëñ laa waxee moo tax sama àddina yëpp ngor laay jëfe fu nu toll dajale naa mbooloo mi yëpp waxtaan ak ñoom maa ngi leen di sant man nag maa taamu déclaration ma defe ko fii Touba ndax ñëpp xam ni tubaa mooy sama base politique ñëpp xam ni ndigal li Touba la jibee ñëpp a xam ni Touba mooy sama yaakaar àddina ak alaaxira moo tax ma ñëw fii def ko fi maa ngi sant bu baax waa tuubaa dellu nag di sant sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér nee naa xéewalu askan wi la yàlla moo ko wàcce pour mu defar askan wi di ñaanal sama sëriñ mu yàgg fi te wér sëñ Moustapha aw fayam ba mu amee juróom-ñeenti at fii nu toll mi ngi sama wet jërë ngeen jëf maa ngi nuyu bu baax maa ngi nuyu bu baax waa chrétien maa ngi nuyu bu baax communauté chrétienne bi fi nekk ndax man Sénégal yëpp laa boole ñëpp xam na ni fi ma bokk dëgg la ñëpp xam nañ ko waaye Sénégal yëpp laa amal jàmm lu jiitu ma yekk si sama candidature dama dem seeti l'archevêque waxtaan ak moom waxtaan bu am solo seeti këri diine yëpp waxtaan ak ñoom waleen fàttali sama biir projet de société bëggoon naa taxawal bëggoon naa taxawal loo xam ni ministère boo xam ne dafay yor mbirum diine loolu yëpp pour ni diine dafa ma ñor te maa ngi nuyu nit sénégalais yëpp ak foo man bokk ak foo man bokk kon sénégalais yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant nag ñi nga xam ni ñoo ma jàppale woon ko parti allié yi coalition Madické 2019 yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm. association d'un parti politique. Est-ce à dire Parce qu'on peut renoncer à la création d'un parti politique et rester sur, le, sur, la scène politique. Euh, Qu'est-ce que vous allez dire sur cela La dernière si par exemple le président Macky Sall vous tendez la main pour vous une mission qui va dans le, dans le sens euh, de servir le peuple, comme l'a dit le Khalif Général qu'allez-vous répondre Je vous réponds en vous disant, je n'ai pas de projet d'avenir. Mon projet, et d'être à l'écoute des Mourides. Je une fois de plus, je suis à l'écoute du Khalife général des Mourides. C'est lui qui m'a dit dans une déclaration retransmise dans tous les médias, dans presque tous les médias, pour dire que je devais être au service du exclusive du peuple sénégalais. C'est à lui de m'indiquer la manière et les conditions qui me permettront d'être au service du peuple sénégalais. Une fois de plus, je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai plus des yeux pour regarder, je n'ai plus des oreilles pour entendre. Je ne vois et que je n'entends qu'à travers les yeux et les oreilles du Khalif général des Mourides.